Ablaye Diouf Sarr waaw Macky Sall moo ko tànn muy candidat. Mhm. léegi Ablaye Diouf Sarr Macky Sall def na soit nag bi gën ci moom donte nag des na waaye mooy choix bi gën bi mu mën a jël. Mhm. parce que Ablaye Diouf saar benn mooy ministre bi ëpp lu mu wax ak senegale yi ci ñaari at yi parce que moo yore woon mbirum Covid 19. chaque jour mi ngi ci rajo yi ak télé yi. Mhm. kon te politique wax da cee baax. moo ëpp lu mu wax moo ëpp lu mu génn tele bi ci des mooy Ablaye Diouf Sarr euh, nekk na kuddu. nekk na ministre euh, transport nekk na aménagement des trottoirs mhm. nekk na euh, tey ji ministre de la santé mhm. mais mm, man de déggaguma néew nal bokk loo koy dégg ci affaire scandalu xaalis li ci des mooy moo jiite kaadaru APR yi Cissé Lo doon na ko fi wax naa waaw moo nekk moo jiite kaadaru APR yi mhm. nekk nag conseil mairie Dakar parce que mooy maire Yoff maire Yoff moo nekkoon day nekk conseil ci mairie Dakar bi ci des mooy dorisinu AP euh, la mais nag ku bëgg Macky Sall la te gëm na ko. Mm-hmm. parce que fidèle APR la. fidèle fidèle militant Macky Sall la. Mm-hmm. tey Diouf Sarr ku yaru la ci liñ mën a wax parce que nekkul maanaam do néew na ñu naan la moo fi wax lii wala moo fi def lii. Mm-hmm. nit ku yaru la te papaam yoof la nekkoon nekkoon notable ci yoof am alal am bari kër bari ay cantine yu muy loué nekkoon koo xam ne da daan loolu tamit daf koo may. maanaam baas bi jógewul ci moom mais ci papaam sax la gën a jóge mm. parce que dafa am papaam ku ñu respecté la yoof loolu lépp bu ko Diouf saar boolee euh, ba pare tamit waa APR daa mel ne jëppi wuñ ko parce que néew na ko contesté bu dul waa kër Amadou Ba yi ñëw nañu contesté lu tax ñuy jël Diouf saar di ko teg mm. léegi nag kon Diouf saar moom am na mille sens pour toog mm. mais nag am na con am na conséquence mooy est-ce que Diouf Sarr mën naa gagné dakaar nag waaw parce que Diouf Sarr li ma wax ko mooy Diouf Sarr fi nga man fi nga man mm. a waat ne Diouf saar mën na ko gañe fi nga mën a waat ne Diouf Sarr mën na koo gañe mm-hmm. waaw euh, boo ko xoolee waaw dawuñ ab état bi dawuñu ko perte te dañ daan perte Dakar waaw mooy ay Ngor Wakaam Yoof mm. léegi nag politique bi dëgg-dëgg mooy Amadou Ba gis nañ ko ñu ne léegi da ngay Amadou Ba gis nañ ko ñu ne ko léegi da ngay nekk da da ngay nekk coordonnateur mm-hmm. moom dañ koy espereloo su élection ministre maanaam euh, député yi bu ñëwee. ñas day dem moom mu ñëw jiital liste bi dem nekk euh, kii. Euh, dem nekk président assemblée. Mhm. mais est ce que Diouf saar bu gañee lee Macky sàll gañe gu rafet. ci dakaar est ce que danañ rombati Diouf saar di bëgg dara dakaar di fa teg amadu Ba. Mhm. est ce que loolu du risque ci amadu Ba amadu Ba moom bu Diouf saar gañee mu alku moom day daanu waaw <laughs> loolu moom moo am. <laughs> bu Diouf Sarr gañee mu alku waaw léegi nag